tey tey la ñu yàlla defoon pour ñu jàkkaarloog journaliste yi wax gis nga journaliste yi di dugg di war ñu wax demuñu ci neegu yaayu aji néegu yaayu aji juróomi bant yu jigéen lañ woon juróom benn jigéen lañ woon ak ñaar yu góor liggéey lañ ñu xamee liggéey daan suñu doole liggéey la ñu xamee daay suñu doole dugal fii ñu ni damay wax nañ ma rey damay wax parce que yàlla damay wax ku ma tere wax ma rey damay wax damay wax nañ ma rey maa ngi nii nañ ma rey maa yaayam rural bi nag sama tur bu ma ko wax dama koy jaay mais maa ngi sant yàlla ba ma toggee jàkkaarloog waa Sénégal yëpp ñu may xool man ak yaayu aju ñoo bokk ndey ak baay moo namp jox ma mat ma topp ci kawam ñun nag balaa ñuy waxtu dañuy masaw waa Sénégal. di jéegalu xanaa ñi defoon ne aji amuñu ay mbokk tey nag bu ñu gisee di dinañ xam ne aji am na ay mbokk aji nag xanaa ku ko xamul may leen ma xanaa ku ko xamul rek ndax looy wax dangay wax sa digganteeg yàlla ñun nag suñu digganteeg yàlla rek la ñuy fesal tey pour wax xamuñu fekkeewuñu yëguñu tamit dañuy bàyyi yàlla mi nga xam ne moo xam moo gis yàlla na yàlla ate yëpp mu leer aji séeréer la kim ko seekal joolaa ñoo bokku ñoo bokku maam xanaa papa yo ñu seedale ku nekk nag dañ lay ñaanal yàlla yàlla miy maye ndam ku am dëgg rek yal na ko yàlla teg sa tàmbali dossier bi mu mel ne ñoo ngi leen di soogay gis ngeen génn waaw xam nga lu a gis ñun dañuy wuyoo ndigal di jëfee ndigal suñu ndigaluy waajur la ñuy moo ñu xanaa moom tey moo ñu jox pour ñu ñëw teew kon dañuy teew ñu doon dugg nag ci réseaux sociaux di wax ci aji ñu ci aji dara man mii maa boot aji aji 83 la l'an 2003 la judd saf saf 3 l'an 2003 la judd man maa ko boot kon kooku xale bu ndaw la l'an 2003 l'an 2003 moom la judd xale bu ndaw la aji est-ce que yëgoon ngeen ni aji Sarr mi ngi liggéey massage ñun buñ ko yëgoon ku ñu gis ñun xam nga ñu xam daal suñu doole man mii di wax ak yéen borom njaboot laa xale bu ndaw laa mais damaa njaboot sama jëkkër dafa gaañu bàyyi maak ay doom ma teye leen di liggéey ñun daal suñu doole la ñu xam liggéey yi ñëw toog ñun loolu la ñu xam suñu dëkk sax xam nañ ko loolu la ñu xam dañuy sant yàlla nag da nga xam ne ñun duñu saaga doomi jàmbur duñu wax lu ñaaw duñu def lu ñaaw ku ñu saaga nag bàyyi nañ la ak yàlla gis ma nit mooy xam maramu bu bon nit ku bon mooy xam maramu bu bon man du ma tontu saaga du ma saaga kenn ndax man dañ maa yar fu ma war a yaree maanaam ñoo ngi sant yàlla de te ci kaw ci kanam war na alxuraanu karim dañuy am ndam ñun ay taalibe Sëriñ Saaliu Say eh, eh, eh, est-ce que ñàkk yëg ni Adji Sarr doon na liggéey massage tekki wu ñu tam da ngeen délaissé woon xale Adji ko liggéey ndax fekkul benn ko abandonné woon da ko bàyyi woon mosuñu ko abandonné kenn mosu ko abandonné problème bi yóbbu woo leen ko seen kër. barke alxuraan kenn ma su ko abandonné wala dañ ko abandonné day tuul kenn ma su ko mu ngi noonu am internet Dakar Buzz TV coow laa ngi noonu gannaaw bi ki nga xamante ne mooy yaay aju saar bu ndaw ba mu waxee kàddu yaa ngi noonu nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi leen di saaga di ñëw di wax ak ñoom kenn ku ci nekk daal lépp loo mën rek yaa ngi koy wax sa morom ci lu ñaaw ndax kenn ku nekk nanguwul wax ne kat kee moo nekk ci dëgg ba tax na famille Adji Sarr moom tey dañ tey génn nañ ñu ngi fippu tey moom génn nañ ñu ngi wax parce que ba léegi kenn déggu woon ci média yi mais tey nee nañ jot nañ digal seen ndigalu kilifa ngir wax li nga xamante ne moom la ñuy dund moo tax tey génn nañ mais ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ndeye Khady Ndiaye tamit may ñu leen dara ñu. yow Gabriel Gabriel kenn wax li tax ñu xarafal ko loolu la ko Sénégal yi

uub uub Da ngeen di jaay caxala yéen a jaay caga ay wala la taxal yéen Sénégal jeex yéen nekkoon ay nit sax yéen ba ay jigéen quoi yéen da nga mën nekkoon ay jigéen yéen xanaa yéen xanaa yéen sunu dara sax ngeen ngeen xool si ñu dee. ñi nga def ko yow suñu kanam. fii muus defi naa ne koy soppati woo sama kanam la jaga ji xam ne ñoo ànd ak Adji Sarr mënuñu sax jël oto dem ñibbi ndax ñi ànd ak Ndeye Khady ñu ngi leen di yuuxoo ñu ngi leen topp ba fi ñu doon jëlee oto empêché taxi yi pour ñoom ñu yéeg ci mënuñu yëg benn taxi. jamono ji tension yëpp a yëg kenn ku nekk rek la nga mën a wax sa morom yaa ngi koy génne ci ay kàddu réglé wuñu fenn demal demal Malick demal എല്ലാവരും agent yi a leen sinon fii dañu mën leen gaañ Nan lay def